yàgg sénégalais que ça veut on doit te parler avec euh, surtout quand on est fonctionnaire avec respect kooku mooy dëgg ji quoi non seulement loolu ba pare nekk contribuable bi la war respecter mm-hmm. affaire boo xamante ne sànq pourquoi par rapport au marocain c'est quand même un pays frère voisin mm-hmm. dafa am loo xamante ne bu ñu ko waxee ñuy ñëw camion di ko waxee noonu de manière informelle mm-hmm. buy générer xaalis bu mel noonu moi je parle formellement bëri muy bëri bëri mooy que c'est du ça devient finalement nos frontières qui sont poreuses avec une économie boo xamante ne xamatul lan mm-hmm. laa doon wax mais dafa am loo xamante il faut il faut que ñu wax ko ci horticulture c'est vrai que horticulture c'est à valeur ajoutée assez important moo si valeur ajoutée et c'est avec Abdoulaye Wade nun waxante dëgg si la commencé développer bu baax mu continuer mm-hmm. parce que valeur ajoutée bu fa nekk mm-hmm. maintenant problème quand on vient dans les Niayes par exemple mm-hmm. les Sénégalais yu bu ñu ñëwee dans non je dis c'est Abdoulaye Wade c'est ça ça il faut il faut à César ce qui appartient à César pendant longtemps c'était ak ndoxu waa SDE la waa ñaay yi doon liggéey ndox bu ñuy naan ah. loolu loolu kooku moom kooku information bu mu si amoon la bu am solo mooy ndoxu SDE eh, si dem la léegi Suez la mais pour dire que quand ndox bu ñu doon naan moom lañ doon liggéey beneen affaire boo xamante dafa am solo te loolu da nga ko waroo mooy da ngeen di wax conditionnement mais boo jëndee benn affaire au moins soble bi war nga xam kan la kan la mhm. poids bi ko xam soble dafa am poids mhm. dafa am lu demee loolu on n'a aucune information par rapport à ça mhm. beneen kii boo xamante par rapport à ndox bu ñu wax suuf boo am da jox loo xamante boo boo nekkee Sénégal suuf bi da lay jox suuf Sénégal da lay jox fruit yoo xamante moom la la mën a jox boo demee France mu jox la jeneen. donc boo amee tomate bi ñuy tuur boo xaale ko tomate bi ñuy tuur waaw quatre cadeau deux mille francs problème bi non mais ce que je voulais leur dire. quatre cadeau deux mille francs ci ñaari ñaari affaire statistique. su ma question question temps. parce waaw peut être béykat yi ko tuur. waaw jërëjëf eh, waaw nee na statisticien la. nee na statisticien la boo nekkee statisticien nekk ci biir wàllum mbay. producteur. sa bopp si kuréel bu ngeen nekk war ngeen xam kanay kan ak. lu ki ki fait quelque chose. donc je dois avoir. Mhm. quand même une production nationale boo xamante ne. yow war nga ma ko jox. bu fekkente ne dem nañ foo xamante ne dañu ne statu euh, euh, lu mu tudd production bi. elle devient euh, autosuffisance alimentaire woon nañ comme. lu muy njëkk a jox mooy que les prix doivent descendre okay. quand il y a mooy que il doit avoir crise mhm. ñun au contraire affaire yi day a yokk mhm. pourquoi spécialement tabaski bu ñëwee ramadan bu ñëwee noël bu ñëwee fekk bu ñëwee les prix flambent mhm. est-ce que c'est parce que si moment yuy fête di ñëw mhm. bi day daanu mhm. ñu dal ñuy tendre vers donc l'offre devient supérieure euh, comment dire l'offre est inférieure à la demande yooyu yëpp daal ñu ko expliqué euh, les les man man der man euh, soo amee chance di dugg biir Sénégal hmm. man question centrale boo xamante nii boroom xam-xam yi xëy na ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy doxal politique yi war nañ ci tontu mooy lan moo tax ñu nekk ci napp gi wala ci mbay mi waxuma ñi nga xamante ni ay paysan dimanche lañ waxuma ñi nga xamante ni aussi dañuy dem fexe fekk gars yi napp ba pare ñu jël ko jaayi ko ak yooyu am ci xaalis ñooñu waxuma ñooñu mooy ñi bëgg doon wax léegi mhm. man ñi nekk ci secteur yooyu nga xamante ni seen contribution aujourd'hui ci sunu PIB ni mu amee solo mhm. lan moo tax retour ascenseur bi du am systématiquement te là aussi ñoom Bass vous êtes interpellé ñi nga xamante ni ñoon ngeen di liggéeyloo ci ci foofu nga xam dañ fay nekk di liggéey liggéey bu métti est-ce ñoom aussi ñu ngi gis seen bopp ci li nga ci li nga xamante ni yéen a koy def mm-hmm. leneen li mooy est-ce que finalement nous avons une économie des territoires mm-hmm. apparemment waaw parce que man dem naa ci dëkk boo xamante ni soriwul Maroc boobu pour ne pas le nommer mais Maroc dëkk boo dem li ñuy wax fi marketing territorial mais foofu nga koy fekk mm-hmm. dëkk boo dem li ngay lekk yépp ci dëkk ba foofu lañ koy bay wala buñ ko fa bàyyiwul am nañ politique boo xamante ni. bokk ci yor seen dëkk mu avancé. waaw hmm. dëkk bu nekk assi nañ na benn xeetu culture boo xamante ni mais tey jii la zone des Niayes am na Sénégalais yu xamul sax fan la. ban tey est-ce nekk na au cœur du débat ba nga xamante ni ñun dinañ ci gis sunu bopp ba nga xamante dootuñu ko bàyyeeg sax waa ñaay bi rek waaye dina am implication boo xamante ni dina am ci autorité yi. Hmm. ba nga xamante ni dinañu dina mën a jëriñ Sénégal leneen li nga xamante ni jàpp naa ne du ñii seen responsabilité mooy mais réew il faut que mu am police quand même il faut que mu am gendarmerie il faut que quelqu'un taxaw ne nii la war a te loolu c'est la régulation li ñu fi jàmbat yépp ba ci transport bi li ñuy wax ne dañuy toog ba ci àgg prix yi cher ak yooyu mais c'est parce que ñooñu noonu ñëpp xam nañ ñan ñoo koy def. contrôle économique. mais pourquoi duñ leen duma ñu bàyyi ko. c'est tout. encore c'est libéral. yaa ngi dégg donc am encore une fois am na ci loo xam pour man c'est une e autorité boobu ñu war a def moom la ñu def ci mbay mi moom la ñu war a def ci napp gi moom la ñu war a def fépp hmm. mais encore une fois que ñi nekk ci secteur boobu directement di ci gis seen bopp te pour loolu am il faut que ñu xool nañ leen leen dimbalee ba ñu màgg de pourquoi salon de l'agriculture am solo France hmm. ba nga xamante ni jamono bu nekk dañ koy xaar yi mais parce que foofu ña fa nekk non seulement gis nañ seen bopp mais dañuy wax il négocie à mémoire égale avec l'autorité mhm. donc et je suis très content de voir des profils yoo xamante ni comme nii nga xamante seen xam-xam màcc na ci domaine yu bari ba pare ñu retourner nekk ci mbay mi et c'est ça qu'il faut damay euh, tontu euh, laaj yu bëri nañu waaw waaye laaj yu bëri naa jéem a naa jéem a tënk rek mhm. xam nga problème statistique yi yoo xamante ni euh, dëppuwul si lii am loolu xam nga lan lay jur daaw daaw ARM mhm. agence de régulation des marché ARMP. bokkul benn benn la bokkul beneen ah, euh, daaw dañuy ubbi marché. dañuy ubbi marché euh, pour oignon pour c'est-à-dire ñuy commencé waat importer oignon. fekk euh, baykat yi nga xamante ni ñu ngi fële gànjol. ils avaient des milliers de tonnes yu desoon foofu au lieu ñu xaar ba ñuy liquider li nga xamante ni loolu moo leen dese dañuy ubbi marché bi. ubbi marché bi ñu euh, importation yi commencé ñëw léegi problème conservation dañ ko am on a de très sérieux parce que amuñu ay unité foo xamante ni dañu fay denc li nga xamante ni moom la ñuy béy mu doon pomme de terre mu doon toutes sortes de de légumes. bépp xeetu les pertes les selon les. c'est ce qui explique donc que les prix augmentent. non explique ça dans une certaine mesure. Ah, il faut na mën expliquer dans une certaine mesure. mais xam nga fan la mm-hmm. di gas ay pax yu xóot. di jël soble bi di ko ci dugal. Mm-hmm. di ko suul. Mm-hmm. foofu la ñu mujjee te bëgg naa bëgg naa. Euh, les médias commencé di concentrer. mais ban incidence la am si soxna. incidence non non c'est-à-dire suul suul nañ ko perte nañu. Hmm. perte nañu c'est fini léegi ñun docteur Macoumba mu ngi doon wax que je suis pas un agriculteur je pense que. il doit il doit être très content que je sois euh, fasse partie. Euh, des agriculteurs et que ma gis rëq-rëq ay de li nga xamante dafa dafa dëng hmm. yi ma bëgg indi sama expertise. pour dimbali ko pour ñu ñu saafaraal ko. nekkuma fii di wujjante ak moom wala ak keneen wala di di di noonante ak ñoom. Hmm. ce que on cherche c'est améliorer xamal la la ñu bëgg. on a li ñu bëgg mooy li ñu bëgg c'est-à-dire on est juste ça fait six mois ça fait neuf mois ça fait huit mois huit mois seulement la ñuy la ñuy exister hmm. mais. li ñu bëgg mooy changer complètement radicalement li nga xamante ni ñu ngi ko doon def depuis les années quatre-vingt jusqu'à présent mm-hmm. ba kii euh, organisation béykat yëpp ni ñuy doon doxalee dama ne lii mënuñu sa ça va ça nous mène droit vers la catastrophe parce que euh, am na ay concurrents yuy jóge à l'étranger di ñëw euh, daaw du mooy il y cinq ans boo bëggee importer soble da ngay dem Hollande importer ko léegi boo bëggee importer soble nootu jobaas ngay dem parce que le ministre euh, Alioune Sarr a donné 200 à des Hollandais donc si tu veux importer des Hollandais tu vas à notre Diobass foofu ngay importer boo bëggee importer pomme de terre jarul ngay dem Hollande ko fa importer mbaan ngay dem parce que on leur a donné 3000 hectares lañ koy importer loolu problème loolu nag mooy vrai problème bi loolu mooy problème la moo ma jaaxal si li ngeen di wax yëpp waaw yéen perdre ngeen peut-être 50 suñu mbay mi. Mm-hmm. bu ñu fexee ba ñu wàcc ko ci ñun ah. mais foofu du xeexu baykat yi foofu xeexu réew mi. foofu réew mi li tax muy xeexu réew mi. Mm-hmm. suuf dafa stratégique. Mm-hmm. Dubaï boo amee ay centaines de millions de dollars mënoo faa mètre carré boo moom te suñu réew mi dafa war a ak gaz ci fan anam ci ci temps yu. ci maanaam ci dans un avenir proche. ci at yu néew. donc suuf si il faut ñu xool ko. mais mun mais parce que Sénégal dina dem ba non dafa ndànk bu ñu contrôle suuf si bu gaz bi explosé parce que réserve Sénégal yi ñuy wax ñëpp les les spécialistes wax nañ ni Sénégal moo ëpp. maanaam li ñuy wax sax affaire Mauritanie ça n'a rien li nekk Kayar man na ko kenn xamul. pétrole y a des spécialistes qui disent Sénégal moo ëpp pétrole Koweït. Mm. xam nga boo nekkee ci réew moo xam ni. c'est-à-dire que bu ñu contrôle suuf si à partir de na fexe ba suuf si Sénégal waxuma Sénégal yi mais Sénégal moom ko dina am dina àgg moment boo xam ne nit dina bëgg appartement Sénégal il lui faut un million de dollars pour mu am ko. mais yërim yërim ci loolu am na ci ay. xam nga yooyu dafa garaaw c'est-à-dire que gis nga suuf du caaxaan. Hmm. c'est-à-dire que pour man kenn warul jaay suuf. da d'accord naa sax mën nañ joxe suuf nit bay ci maanaam bàyyi emphytéotique mën na am. Hmm. mais titre foncier ci suufu réew kenn waru ko joxe nit. parce que dafa jaaduwul. c'est-à-dire man d'accord sax ñu koy jox ku fa dëkk wax waxuma la ku fa dëkkul. waaw mais loolu mooy problème maanaam réew yàlla eh, maanaam réew dafa war a contrôler suuf si et puis dans quelques années fii fukki at réew mi dina xat trop trop trop parce que réew dina am alal ju dul jeex réew mi dina dina doon enjeu boo xam ne ñëpp dañ fi ñëw. maanaam les métiers du pétrole y a plus de mille métiers du pétrole dina dem ba fii boo pour nga louer benn appartement Sénégal di fay des centaines mm. boo demee Angola tey mm. boo amul deux millions de dollars doo am appartement donc affaire boobu buñ ko contrôlé wu léegi léegi léegi nii parce que réew yu bari yu explosé yu mel moo koy def moom la ñuy wax depuis le début ah. xam nga xam nga lan c'est-à-dire que moom ah. la wax moom la wax depuis niveau de problème bi pour man li ëpp solo mooy que aujourd'hui ay nit a ñu jógee extérieur ëpp leen ëpp leen tuuti alal tuuti alal parce que état bi nekk fa pour dimbal la hmm. ñu war a jël dara di ko dugal ci ay frigo yu mag ñu koy suul te ñooñu am ay seen frigo yu ñuy denc alors euh, avant de passer à la deuxième partie jéggalu rek ñu bëggoon participer de bëri na docteur Malick Diop par exemple qui nous dit que exportation horticole yi sont passées de 35 000 tonnes en 2012 à 122 000 tonnes en 2018 euh, production horticole bi tamit jàpp na ko 1 million 446 000 160 tonnes ce sont des chiffres directeur ARM aussi bëggoon nañu woo ko bëggoon na participer mais temps bi mujj xat xanaa ñu tëggaat euh, émission bi ni ki aussi euh, Mendy directeur statistique agricole ministère de l' agriculture ñuy jéggalu li di yëpp xajul ci nag euh, nag yi la ñuy wax xaw ma parce que marché lañu demoon marché la ñu demoon li ñu dugg dafa bëri yaa ñu dem deuxième partie ci diggante maraak ma bijulul